ñëpp a nangu lu nekk ci rapport bi engagé na ñëpp. donc à l'unanimité à l'unanimité ñi ndax c'est vrai nag rapport yi boobu waxuma lépp la ñu d'accord. Mhm. am na ay points d'accord am am na ay points de désaccord am na ay points yoo xam ne war nañu ko sob topp mais au moins pour la première fois sur un rapport sur huit commissions yi ak la commission de synthèse ñëpp ne d'accord nañ ci amul benn objection ci li ñu bind moo ñu engagé ñun ñëpp et loolu nag mu nekk une victoire du Sénégal. lii di am fii am fii ci Sénégal ñi di waxtaan ba am ay rapport joxe ko président rappelé na ko ci doon yeneen réew. Mhm. ay yeneen étranger ñoo ñëw di leen dimbali yéen a ngi fàttaliku fii ay li ñu doon wax ay NDA yi parfois ay Nations Unies parfois yeneen organisme ou bien ay yenn ONG international dugg ci pour jubale nit ñu nekk ñu bokk même réew. Sénégal fii kenn raxuñu ñun ñoo toog force politique différente force économique différente. alors patronat mhm. syndicat société civile ñëpp ay sénégalais. te waxtaanee mbirum Sénégal ci domaine yépp jeunesse sport culture économie environnement cadre de vie politique yépp ñu waxtaanee ko tënku ci benn document bu nga xam ne président Moussa Niass tey la ko jëbbal président de la alors dafa amoon loolu nag mu nekk fierté pour le Sénégal. mais il y a eu une fierté certes euh, ci point euh, d' accord yu ñu jot am ci dialogue bi mais d' une autre part euh, peut être bi yoon président dafa bàyyi njuuj njaaj comme ni mu ko waxee woon dialogue bi passé ñu gis ne que y a une bonne partie quand même de l' opposition yoo xamante ne amoon nañ seen kàddu à dire présente ñu woon ci dialogue bi nii loolu tamit ban analyse lañ ciy def parce que à à huit mois de huit mois des élections ils se cette question pourquoi le président de la République a senti le besoin de dialoguer mais nee na d'abord yow da nga bëgg a limiter dialogue bi c'est simplement politique non mais parce que déedéet foofu nga ko bëgg a limité. alors que dialogue bi wax naa la ko fàttali na ne huit commission ba une autre neuf commission synthèse. mais vous êtes d' accord avec moi environnement que. il y a eu énormément de commissions mais tey tenir en haleine euh, aujourd'hui mais c'est comme ça c'est le Sénégal est un peuple profondément attaché à la politique mais dama bëgg foofu boo xoolee presque inclusion totale économie li ma ko fàttali sànq sport culture. jeunesse cadre de vie environnement yëpp pétrole bi yëpp ñu waxtaane ko loolu quand même c'est une très très très belle initiative à li am ni mosuma koo gis ci Sénégal président de la République bu toog ñëpp def conclusion dialogue bi ne ko document bi da jébbal nañ la ko ñu ñi ñoo d'accord ci lii dialogue nag li président li mën mooy oote dialogue oote invitation ñëpp euh, kuy wuyu ak ku dul wuyu chacun a sa liberté nous sommes aussi dans un de droit. doo forcer kenn nga ne ko ji si dialogue. Hmm. ñoom ñoo décidé ñu nekk des partis souverains ñu ne ñoom demuñu dialogue mais gis nañ tey que ñu demutoon tey am ñu échec ñoom seen bopp parce que li ñu doon xalaat ah ñu ñëwutoon. Hmm. c'est une honte pour eux c'est une défaite politique. dañu newoon dialogue du jur dara. par exemple ñoom bu fekkee ni li ñuy wax dialogue politique bi dañu doon wax. dañ doon wax gaa ñi ah Khalifa Sall dem nga wuy ji PDS dem nga wuy ji am na ay parti yu bari yu nga xam ne dañ leen di ooyee noonu la li dem nañ wuy ji réew mi dem nga wuy ji ah a ngi dem mais gaa yi leen di nax du ngeen fa am dara mais boo xoolee tey mais tey bu fekkee man boobu laa bokkoon commission boobu laa bokkoon discussion yu profonde euh, d' abord discussion ci d' abord ci président bi parce que président la bi imposé ne nañu waxtaan wax waxtaan ñu am ku leen jiite parce que am na ñu fa jiite woon. opposition bi récuser leen président ne na opposition bi proposé proposition sax mu jël am ba ñu ñu d' accord ñun ñëpp force yëpp d' accord opposition moo proposé ak ne loon aligné ne ki fi nekk muy directeur général des élections di Thiendella Fall ma koy ma koy ma koy félicité di ko mais mais di ko delloo njukkal ci liggéey bi mu def ne nañ ko d' accord nañ nañ ko def ñun pôle majorité ñu ne lépp lu ngeen d' accord kuy président ñun d' accord nañ ci mais mais monsieur le ministre est-ce que vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui que l'opposition a toujours été constante c'est-à-dire ñoom dañoo mës a jàpp ne que dialogue bi d'après ñoom li ñu ko tuddee toujours. ban opposition ngay wax. l'opposition qui n'a pas répondu. qui n'a pas répondu l'opposition. qui n'a pas répondu parce que boo nee utilisant L apostrophe <laughs> opposition. non mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire nu ma ko nu ma ko bindee dans ma tête mais c'est l'opposition qui n'a pas ah, euh, euh, euh, qui n'a pas répondu à la main tendue du président de la République. c'est ça une bonne partie. une bonne partie de l'opposition donc ñooñu euh, dañoo yàgg wax ne que dem parce que deal la ñu jàppee euh, dialogue bi ne que deal bi c'est quoi c'est juste pour permettre aux candidats Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall ñu bokk ci élection mu nekk monnaie d'échange pour que président de la République aussi mën a bokk ci élection donc à la fin on se retrouve que effectivement ñii bokk nañ donc est n'ont pas quelque part raison nañu cohérent euh, ñoom bu ñu créé Yewwi Yewwi Askan Wi boo Euh, le mémorandum bu conduire à Yewwi Askan Wi. xam nga leen jàpp dañoo ne ñoom bu ñu ñëwee lu ñu njëkk def mooy que Karim wadd mhm. ak ak Khalifa Sall ñu retrouver tout leur droit. oui donc c' était xanaa kon c' était pas sincère. Ah, il faut ñoom loolu moo nekkoon seen combat ñu ne dañoo bëgg Khalifa Sall retrouver leur ses droits. Mhm. léegi ñu ñëw ne leen kaay leen ñu waxtaanee lépp président dem na ba fixé wul ordre du jour. fixé wu terme de référence yi moom boobu bi ko gars yi yenn parti ne balaa ñoo wax nañ wax terme de référence daf leen ne leen ñu fixé ndoo terme de référence yi ñun ñu nga xam ne ñun la mandaté ñu représenter le pôle de la majorité au dialogue politique mhm. daf ñu ne leen discuter de tout ce qu'ils ne rejeter aucun point discuter de tout ce qu'ils veulent l'essentiel c'est de former un point de vue qui soit en adéquation avec les lois et règlements de ce pays mais loolu lañ fa def méngoowul ak sartu sartu réew mi am donc comme neexoon nga ñëwaan bu fekkee am na ñu ñun duñu ay jinne duñu ay malaayka oui mais ñoom bu leen neexoon ñun ay sénégalais lañ ñu ñëw toog waxtaan défendre seen position seen position bu ñu assume ñu génn ci askan wi wax ni ñii lii lañ fi bëgg a décider mais nag d'accord ci. mais mais seen position. mais la politique de la chaise vide n'a jamais été une bonne politique en en en matière. mais seen position ça ça a toujours été tey cette question sur le troisième mandat. oui ils ont soutenu que il fallait que président de la République taxaw clairement wax ne que euh, du bokk ci élection yi pour que ñoom ñu mën a dem au moins. peut-être toog ak ñoom waaw xanaa président de la République du citoyen. naturellement du citoyen dafa am droit. am ay obligation pourquoi ñun waxuñu ñun majorité ñu ne waa opposition yi ku ci nekk nañ wax ni kii dafay bokk ou bien kii du bokk kii day bokk kii du bokk nañ ko fàttali ñun ñoo tënku ci ay loi ak ay règlement yu wax ni bépp sénégalais bu ko neex mën na déposer ci candidature waaye mu war a respecter yenn règles yi yenn régle yi ñu cité ko nommément cité ko dañu ne règles yooyu nag kuy àtte kan moo méngoo ak sart yooyu conseil constitutionnel képp la point boobu posé nañu ko. point bu ñu demee dialogue politique point boobu opposition bi posé na ko wax lim xalaat ñun majorité ñu wax lu ñu xalaat. mu nekk point de désaccord ci dialogue. désaccord li ñuy waxtaan ñoom dañoo wax seen position ñun tam ñu wax suñu position. ñu discuter discuter ba ñun ñun ñëpp ñu tënku ci ne waaye comme que mënuñu déggoo ci kan moo war a nekk candidat te ñun jàppoon nañu dialogue politique bi du moom mooy recevoir ay candidature candidature ci suñu constitution conseil constitutionnel rek moo koy recevoir moom mooy atte kan moo war a nekk candidat ak kan moo warul nekk candidat nañu fàttaliku 2012. Mhm. Youssou Ndour déposé woon na candidature am Youssou Ndour ku fi ëpp tur ci ci Sénégal ak ci àddina conseil constitutionnel jàpp ni dossier Youssou Ndour bi méngoowul ak suñu charte rejeté ko Youssou Ndour lu mu def impliqué wu. dem defi ëllëg. muy Macky Sall mais monsieur le ministre vous êtes en train quand même de citer deux cas qui ne sont pas pareils ëllëg ëllëg dama lay citer ëllëg Macky Sall tamit ci même yooyu la. règlement yi non mais mënoo tënkale Macky Sall je veux dire kaawu président de la République parce que on parle pas de personne kaawu président de la République Macky Sall ak kaawu keneen beneen indi beneen. keneen lan mooy seen différence sa kaa wala sama kaa wala keneen. président de la République. y a eu quand même euh, euh, euh, y a eu quand même cette constitution qui limite le nombre de mandats à deux. waaw loolu xam nga loolu beneen débat la loolu tamit juriste yi loolu débat droit la. <laughs> juristes yi am na lu ñu ci wax ba pare ñun wax nañ suñu xalaat ci article bi ñu ko bindee dañoo jàpp ne article bi 27 dafa ne le mandat est de cinq ans. et nul n'a le droit d'avoir deux mandats consécutifs. deux mandats consécutifs dafay bañ def répétition mais c'est le mandat de cinq ans tout le monde le sait. et en février 2016 déjà dans dans l'arrêt de du du du du conseil dafa ne woon que le mandat actuel du président et hors de porté de la norme nouvelle loolu c'est clair. sur le plan du droit gis nga ñi ñu fi wax yëpp ils font de la supputation politique donc le président nous pour nous il est en droit de se présenter mais si l'opposition était sûre que le président n'est pas en droit de se présenter ñu am argument mhm. mais il faut convaincre le conseil constitutionnel si le conseil ñun bu ñu demee am la candidature du président Macky Sall ñu rejeté mon niveau nee na bu ñëpp bu fekkee ne citoyen dañuy wax ni kii moo war a nekk candidat kii moo warul nekk candidat ça ne sert absolument à rien et le débat du droit oui il est complètement alors moi je veux juste nga expliquer ma comment vous vous comprenez naka ngay comprendre président de la République avec ce qui s'est passé en 2012 mu taxawoon di xeex troisième candidature président de la République en 2016 mu def constitution wax ne que c'est justement pour euh, tàkkali ko ces questions de mandat une bonne fois pour toutes le 31 décembre 2018 mu wax ne que euh, euh, suñ ko falee 2019 mooy deuxième et dernier mandat y a pas lieu d'interprétation comment comprendre wax yu mu wax yooyu yëpp euh, tey ñu war a ñëw encore di reposer cette question sur la table yow loolu naka nga koy comprendre ah, xam nga man mm-hmm. man li may jàpp mm-hmm. mooy ban référence la ñu war a am pour atte ci référence yu ñu war a am mooy texte texte texte texte yi ñu wax dama boo ma waxoon ni texte wax na lii man dama la wax ni arrêt conseil constitutionnel moo ne mandat wu sept ans wu Macky Sall est hors de portée de la loi nouvelle te loolu c' est écrit sur blanc beneen bi suñu constitution wax lii kon bu ma wax ay Macky Sall il parlait président Macky wax na lii Ablaye Sow wax na lii. li ngay wax ni président Macky wax na ko. Mhm. ngay fàtte ni tamit li maire Barthélémy Diaz waxoon. mais moom tam waxoon na ci. mais mënuñu tëkkale parole Barthélémy Diaz ak parole président de la République ça n'a ça n'a absolument rien mais quelle est la quelle est la valeur juridique de de la parole du président de la République. président de la République ci kaddu am xam nga lan mooy kaddu président de la République bu am valeur juridique mooy décret. mais un président de la République c'est un citoyen comme tout le monde c'est un être humain comme tout le monde qui peut évoluer sur des positions pourquoi on pourrait accepter que Barthélemy a évolué sur sa position et que Macky Sall n'évolue pas sur sa position et là c'est pas le plus important Macky Sall dafa nekk un individu. Mhm. nekk. président de la République mais mu nekk dans une coalition mu nekk dans un parti politique le point de vue du parti et de la coalition politique dafa am chemin nu ñu koy nu président de la République même s'il avait une position contraire mu minoritaire il est obligé de se soumettre maintenant il est quand même libre moom en individu comme ni mu ko waxee xool jàngat xool situation xool lépp xool li nga xam ne mooy méngoo ak li mu li mu gëm ci démocratie mm-hmm. ñun jàpp nañ ni en tout cas ñu mel ni man que rien ne s'oppose à la candidature du président Macky Sall. Vous pensez qu'il va se présenter C'est ça, man, c'est ma conviction, c'est qu'il n'y a rien qui s'oppose sur le, sur le plan du droit Alors, à la candidature du président Macky Sall. Il n'y a rien sur le plan politique oui, mais ça, qui s'oppose qu à... Mais ça, rien, mais ça c'est ma conviction. mais je suis respecté aussi des convictions des autres. parce que président de la république bi jël toog moo ko Ismaïla Madior Fall bind constitution dem pour limiter mandat war a delluwaat ci conseil constitutionnel. pour mais limitation mandat ba tey mu ngi fi. c'est c'est c'est limitation mandat bi ba tey mu ngi fi mais la fu ñu déggoowul maa ngi yow. mooy mandat wu sept ans bi nga bëgg a jaxase ak mandat wu cinq ans daf mel ni daf mel ni daf mel ni Ablaye Sow ak Lamine Sow <laughs> c'est pas les mêmes personnes nous sommes même de la même famille <laughs> absolument rien à voir alors euh, si ce fort intérieur euh, on a entendu président de la République mu waxee dégg nañ ko fële ca Paris ak déclaration am euh, vous pensez qu'il qu'il va franchir le cap qu'il va se présenter vous savez moi la mm. politique c'est le factuel man wax naa la man si ma gëm-gëm man su ma gëm-gëm. mooy le meilleur choix le recteur pour le Sénégal c'est le président Macky Sall. vous voulez qu'il se présente pour une troisième. si c'était que ma décision le président se serait présenté. mais moi. je suis aussi un militant. je me soumettrai à toute décision du président Macky Sall ça c'est clair et moi j'ai toujours dit je ne me vois pas d'avenir politique en dehors du président Macky Sall c'est clair moi ça dans dans ah ma conviction ma loolu laa gëm. ah mooy mooy nag. Mhm. mooy lépp lu président Macky Sall tracé. dans un sens ou dans un autre moi je respecterai ça. donc mu jëloon keneen teg ko pour 2024 euh, vous allez être d'accord avec lui. mon choix il ne varie pas mon choix c'est le président Macky Sall mais le président Macky Sall man maa nangu itam tënku ci sartu ak loo ak ci parti am tënku aussi ci leadership am. Mhm. tënku ci xam-xamam. d'accord tënku aussi ci ci ci sagesse am. li mu jàpp ëllëg mu ne lii mooy yoon wa kenn fa jiitu Abdoulaye Sow alors euh, peut ci point de désaccord yi gis nañ ko euh, mu ngi cette personne peut-être euh, personne neutre bi ñu waxoon ne que moom moo war organiser ces élections ñu gis président peut-être ba tey amaana peut-être yéen d'accordu leen woon ci biir dialogue bi loolu tamit comment le comment le qualifier est-ce que du doon avancer parce que les gens quand même attendaient cette décision mais mais nee na hmm? suñu système bi moo jox ñaari alternance moo may Abdoulaye Wade mu nekk président de la république moo may Macky Sall mu nekk président de la république suñu système bi moo fal Barthélémy Diaz mu nekk opposition radicale maire de Dakar alors que nous avions des candidats tout aussi valables suñu système bi moo joxe maire de Thiès mu nekk opposition. oui mais tant qu'à trouver des consensus forts moo nekk moo jox Ousmane Sonko maire de Ziguinchor. on n'a rien à redire sur le système. mais quand tu as trouvé des consensus forts loolu mënoon na nekk tey jii euh, benn consensus boo xamante ne kenn du naatable ne que président de la République a aujourd'hui envie que les choses mais ma rek xam dama bëgg wax ne suñu système bi tey mhm. c'est éprouvé que c'est un système démocratique on n'a pas un problème de système électoral au Sénégal loolu c'est clair parce que élection yi wane nañu ko ba ci assemblée nationale bi mujj bu fekkoon assemblée nationale ku yore ministère de des élections yore ministère de l' intérieur. Mm. rek da ngay mais dañuy am au moins cent à l' nationale. Mm. donc loolu c' est des débats dépassés et ensuite dans tous tous les pays de référence démocratique yi ñuy wax. Mm-hmm. Sénégal parfois c' comme ce que Birago Diop quand la mémoire va chercher du bois elle ramène toujours le fagot qui lui plaît <laughs> mais sama waa ji nañu xool référence pays démocratique yëpp état mooy organiser administration mooy organiser les et nous avons une administration républicaine. Comme on a aujourd'hui une armée républicaine. C'est ça, il ne faut pas aussi que nous reculer pour des calculs politiciens qui ne servent absolument à rien. Tout ce qu'ils ont dit, après, à la vérité, se sont rendus compte que nous avons un système bien efficace. Bien direction des élections, le directeur général des élections, mhm. mais il fait partie du ministère de l'Intérieur. opposition, mon Dieu, que dépose, boo nangoo ci commission bu mel toll nii mu war a am en charge. Mhm. le débat politique. nga ne kii na ko jiite mais lu ko tere jiite élection. donc nee na il faut quand même que yéen journalistes yi. Mhm. yéen a ngi ci bureau de vote kan moo a sàcc élection yow nee na nañu wax ne dëgg. <laughs> kan moo mën a sàcc élection ci bureau de vote da ngay parti yëpp am représentant mu am bureau mu am mu am des scrutateurs mu am des superviseurs bu ñu paree dañuy lire résultats yi ñu ñu compter devant tout le monde ñu affiché ko kan moo ko mën a changer. yéen journalistes yi si en direct ngeen di joxe résultat yi kan moo mën a soppi résultat yi. oui mais non nañ def de nañ def. ñoom il parle d' autre chose ah il parle pas ci ci bureau de vote yi en tant que tel mais peut être euh, yenn mécanisme yu ñuy teg on avait entendu yenn déclaration au ministre de l' intérieur mais bon on aurait voulu. quand même Euh, déclaration ministre de l'intérieur bi bi bi bi bi bi jàlloon Aly Ngouille Ndiaye quand il disait aujourd'hui que euh, yenn ci ay militants am dina def tout ba ñu jot seen carte d'identité peut-être ñoom foofu la ñuy waxee. Ah, waxuñu waxuñu peut-être même si bureau de vote. voté deux fois wala voté trois fois Aly Ngouille lu wax responsable politique loolu lay wax. D'accord, donc il a, il a, parlé justement en tant que responsable. Man, tous les jours, je travaille à ce que mes militants puissent avoir mais leur cadence et puissent obtenir, recevoir leur cadence. Où est le problème Mais l'autre moment, nous avons une personne neutre pour nous organiser ces élections. D'abord, personne neutre, moi, vous faire le yow naka nga mën a xamee nit far na far na ou bien farul. kon ñëpp a far. mais ku koo gis mu ngi far <laughs> koo gis mu ngi far. d' accord alors beneen euh, beneen actualité bi peut-être moom mooy euh, euh, on a vu Juan Branco.